ci mbuus yu bees lañu koy def amoon na benn bisu noflaay Yeesu jaar ci tool yu ñor bi ñuy dem nag ay taalibeem daldi fàq ay gub noonu farisiyen ya ne Yeesu gisal lu tax say taalibe di def lu jaaduwul ci bisu noflaay bi Yeesu tontu leen ndax jànguleen leen la Daawuda defoon ba mu amee soxla te xiif moom ak ña mu àndaloon xanaa yëguleen li amoon ci bésu abiyataar sëriñ bu mag bi ni daawuda dugge woon ca kër yàlla ga lekk mburu ya ñu jébbal yàlla jox ci it ña mu àndaloon fekk jaaduwul kenn lekk ko ku dul sëriñ sa yéesu dellu ne leen yàlla sàkkul nit ngir bésu noflaay bi waaye sàkk na bésu noflaay ngir nit noonu doomu nit ki mooy boroom bisu noflaay bi